société nationale d'électricité bu Sénégal di may seen revue de presse bi simila daanaka yéenekaay yëpp ci gàmm gi lañu xëyati réew mi quotidien nenu mooy gàmm gu mujj lataa élection présidentielle bu 2024 moo waral woy politique yaa ngay daagoo nu ne ca kër kilifa diine yooya journalu groupe réew mi network ne kenn desu ca ginnaaw nag pouvoir ak opposition ñoom ñëpp daw nañu wutali këru diine yooya les gannaaw ba mu ko dëggalee ma nga ñuy xamal ne yeew yi ña nga woon démb ci tiwaawan yëkkati nañ fa ay kàdduy jéeba yóbbaane jëme ci président Macky Sall sàkkul ñaanit Ousmane Sonko gannaaw ba nu fësalee bundu xataal ak jafe-jafe yi ko nguur tekk Idrissa a it ma nga fa woon ñaan nañu jokkalante nguur gi ci jàmm waxit li waraloon mu ni tekk Macky moom ma ngay wéyal tàggatoo ga démb ma nga woon ca Medina Baye ak Léona Niassène ñu tertu ko fa tertu bu mucc ayib buñ sukkandikoo ci les échos waa garam place ne Macky kay këru diine yépp ñoo ko ñaanal gannaaw Tiwaawan njiitu mi dalal nañu ko ca Léona na liggéey yim def ci këru maa ko mën a seede ndax Macky Sall loxoo mësta jóg ci këru diine yi ku ne ma ngay xool nu mu la teralee ak nu mu la yëkkatee waral xalifa bi ne ko këru diine yi moom sa nguur gi neex na ci ñoom lool te gis nañ ci seen bopp laas nañu këru diine yi ñu ngay réccu nguurug Macky sàll gi di jeex fegal gi muy fegal tiis la jur ci ñoom vox populi firndeel ko kàddu yu xalif général bu Medina Baye yëkkati démba ne Macky Sall yaa ngay tàggatoo waaye tiis la jur ci ñun ndax dal gi nga yoree réew mi moo waral tàbbiwunu ci guuta Benno Bokk Yaakaar Niass ndax Macky ku ko dénk buñ sukkandikoo ci Walf Quotidien L'Observateur boobu jamono dellu si ci kàddu yi Cheikh Mahi Niass dénk Macky Sall rafet lu rafetlu yu xalifa bi jamono ja Idrissa Seck di sàkku ay ñaan ngir ñu jokkalante nguur gi ci jàmm te it fitna ñu a yeewu yeewi ñoom ña ngay wéy di gàddu xeexuk Ousmane Sonko te yóbbu nanu ko ba Tiwaawan Tiwaawan googa la yoor yoor bi xëy yóbbu ñu nañu daa mel ni màggat foo laal day metti yéenekaay bi nee na jafe am na ci secteur bu ne assainissement njàng njàngale mi ndaw ñi amul xëy ak yaram yaram gi gën a wopp ñépp loola yépp nag teewul ñépp ngi daw wutali këru diine yi ndax gàmmu gi enquête nañu gàmmu gi bu nu maywul sax mooy gën a bari mbooloo yeneen yi ko jiitu le quotidien dëggal ko journalu Madiambal Diagne bi ne mbooloo mu bari lañu nemmeeku ci këru diine yépp ñeel màggal juddug yonent bi yonent booba sallallahu alayhi wa sallam moom la Sud Quotidien xëy dinu xamaleek moom xamal ñu it ne ci guddeb tay ji képp kuy jullit ak këru diine boo fare danga tàttaan ci leeram sukkandiku ci li fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan dundeek doxalee yéene kaay bi ba mu daaneele ca maam Maodo daa yëkkati ci Baye Niass fayda bi ak nim daan màggale juddug yonent bi dellu siwaat ci njàngaleem yi dul jeex ba abadan bés bi dellu siwaat ci ni maam Maodo doxaleek nasaraan si ba tasaare yaa ci Sénégal waral mu tuddee ko Maodo le stratège maanaam ku bari pexe pexeem ya bés bi ne bokkoon na ca jox ndigal maam Abdoulaye Niass mu sañ ci Kaolack ba xam Diop mi doon secrétaire particulier bu Baye Niass itam yéene kaay moo daan dalal gàmmu gi laata Tiwaawan dellu siwaatit ci taarixu màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom yonent booba ay seede yu mag yi boroom xam-xam ak i kilifa def ci moom la vox populi xëy yeggeeñu bokk na ci Alphonse de la Lamartine Gandhi Napoléon Bonaparte Georges Bernard Shaw ak ñeneen ñenn ci waa Pastef jamono jooja tàmbalee wut parrainage ngir Ousmane Sonko waaye loola xajjale na seen parti bi ci Ndakaaru Amadou Ba bu Pastef ci yéenekaay bi ne li ko waral mooy benn ci parti Pastef yégul boobale taxawaay bu mën a indi ay jafe ki gàllankoor naam mi ngi ci jafe-jafe ak gàllankoor yi tegu ci kawam waaye teewut Ousmane Sonko moom élection présidentielle bi nu dëgmal bokk na ca mooy gañe na ko Assane Samb analyste politique moo ni waxee ci biir yor yor bi fekk fa Mary Teuw Niane miy waxi ci mbiri Ousmane Sonko ne président Macky Sall dafa war a ubbi weneen waxtaan dialogue bu nu mën a may ñu génn ci coow li gàllankoor réew mi Ousmane Sonko moom génnagul ci mball gi ndax source a nee na léegi tey ñu delloo ko kasob Sébikotane moom jiital Pastef moo waral kilifa yi dellu kaso dellu googa nag source aane mi ngi am ci jamono ju ko ay ñoñam di wutal parrainage ngir mu mën a bokk ci élection présidentielle bi nu dëkmal parrainage booba les échos nee na wàdd ki ñoñam xamagunu ban tànk lañu cay feccee ñoo ngi xalaat diggante parrainage citoyen ak parrainage des élus ndax am na ci kilifa yi PDS ñu jàpp ne danoo war a wone seen doole boole parrainage des élus ak parrainage citoyen waaye Nafissatou Diallo ne ñoo ngi wéy di waxtaan ak di ci xalaat FRAPP France dégage seen xel ak seen xalaat yépp booba jamono nekk ca ñu ñu tëj rëbës ndax ñenn ca ñoom Marius Sagna ak gaayam yi nee na dañu leen a dóor ba ñu amee jafe-jafe ci seen wàllu wér-gu-yaram muy lu nuy ñaawlu ci réew mi quotidien booba jamono F24 di ñaawlu ci vox populi ni leen préfet yi aaye bépp manifestation bu nu bëgg def ñaawlu nanu itam ni ñu karee caravanu Mimi Bougane ak Malick Gakou Idrissa Seck moom fësalati yéeneem ngir doon njiitu ne nag politique bi muy def ak falu gi mu bëgg a falu ci réew mi ci lenn lu dul juboole réew mi ak liggéey ko ba mu jëm kanam waaye idi nee na ngir loola sotti faaw sénégalais yi juboo ci seen biir organisation mondiale de la santé jël ngir ñu aaye cigarette ak chicha ci lekkool yi lanu réew mi quotidien di xamal gannaaw ba mu ñu yeggee seede yu doy waar yu bàyyeekoo yi di héroïne cannabis volet ak cocaïne ñoo gën bi def ko seen biir loolaa ëlëm yéene kaay bi xëy def ci gëstu gu yaatu libération di ñu xamal booba jamono ne gannaaw ay gëstoo ki càmbar fisc ma ngay fayeeku Eiffage ñaari milliards yu teg waaye Eiffage daa siisu lànk ca kawam waral mu sàkku beneen càmbar dib expertise boo xam ne la ca tukkee it fisc nee na du ko nangu tey du ko nangu ëllëg tey ci àllarba ji la ñuy xam réew yi dalal CAN 2025 ak 2027 stade mi nu ko yëgal ne Sénégal ak Maroc favori leen ca réew mi quotidien nañu Algérie mi sampoon ndëndam ngir dalal yooyele CAN mu jéenokaa sempi bokkatut Amara Diouf moom ne bokk na ci li ko tax a yegg si fi mu toll tey njàppandal gu njabootam ay xaritam ak staff bu génération foot foofa la ñuy yem ci wërngal gi ñeel yéene yi di leen ñaanal kenn loog jàmm